mbokk yi tëdd yi ñuy déglu ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen sant di ko àddale njëkk ak teraanga di ko àddale yara teggin ñu dal di dajawaat ak yéen ci nañ ko baaxoo di defee lii nag muy war a nekk mu bu njëkk bi ci kalaama li nga xam ne moo nekk ci suñu réew ya gannaaw bañ gaarale kàddu yi si kàllaama nasaraan te mu di jotaay biñ baaxoo di dajeek yéen ñu xamee ko ci yoon wi mu di cosaani rajo Hello Gambia tey ci bési samedi bii nag lañ ko baaxoo di def njëkk na ñuy def yeneeni xaaj ci kàllaama nasaraan ak wolof waaye bu mujjee bi ñu bugg ñu def ko ci sawtu bi nit ñi di ko déglu ci rajo ba ñu defati ko tam ci loo xam ne di ngeen gis jëmm ji te déglu wax ji mu di audiovisuel kon ma di seen mbokk Essa Bokarr Sy waaye balaa ñuy sori nag ñu doore jotaay bi ci turi yàlla bu tedd bu màgg bi di bismillahi rahmaani rahim ñu julli itam ci kaw yonentam bu tedd ba mu yónni ci nit ñi jinne yi mu di muhammadu rasul sallallahu alayhi wa sallam bi xaaj nag lañ fay indi modèle ñi nga xam ne ñoom ñooy jongante ci wàlli xëccoo nguur gi waa jaarale ko nag ci ñu tànnee leen ci ko ëppale baat jóge ko ci nit ñi am nañ nag loo xam ne bokk na ci li leen di leeralal yoon bi walli nag loo xam ne moo di lañ jot a dégg ci kàddu yu bees ak jëf yu bees ki nga xam ne nag mooy Mama Kandeh jóg na di wër réew mi te am na mbooloo mu takku mu koy topp te ci biir loolu itam am na ay kàddu yu muy gaal waaye fi ñu toll nii itam xam nañ ne li deme ni ci sarte yi war a walla itam saytu liy jëmale nit ñi ci la leen di yóbbu ba ñu mën a tànn nit ci njub am na lu ca desandi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy war a nekk ñi atte diggante jomantekat yi mu di IEC boobu itam am na lu ca xëjam loolu yépp nag dañ koy jaarale ci lu koy tame walla lu koy sagg te fekk dafay jaar ci xelaati nit yoo xam ne dañuy séentu lu ñëwagut te itam di seetati li xew ci jamono ci loolu nag dañ koy teg ci diggante li nga xam ne moo di liñ gëstu gis ko ci nis askan bi di yéege ak nu muy xelaate ak itam mu nekk ci diggante ñooñu ak nit ñoo xam ne nag li ñu soxal tey daal mooy na wecceeku wecceeku am ca gambia ki leen di defal nak, fram facc bii nii moo di seen mbokk yi sa bokkar si ñu dal di wéy nag ci faram facc bi gannaaw ba nga xamee ne mama kande mi jóg di wur réew am na ñu ñu yónnee vidéo am na ñu ñu yónnee texte am na ñu ñu yónnee email yónnee ñu ko nag ci suñu liggéeyukaay na benn boo xam ne sax daf ca fés moom man suma bopp la laaj mu ne ma yow lan mooy sa gis-gis ci liy xew ci réew mi ci jamono ji nga xam ne nag ki turam gën a siiw sur le fés ci yëngu-yëngu yi mu di Mama Kandeh balaa may sori nag di may baamtuwaat loo xam ne dama ko baaxoo di wax du caa génne buggumay ànd ak nit ñi waaye lañuy jëfandikoo ci wàlli tas xibaar ak yooya warula am parparloo ne man fu ma samp woon démb bokkuma benn political party bokkuma benn political group wala civil society organisation falaa nekk ba tey waaye itam yàgg nañ fii di tasaare di wasaare li nga xam ne mu ngi jóge ko ci jiiti political party boo mun di doon kon itam li ma fi tax a ñëw ci suba faram fàcc dama koy jaarale ci loo xam ne amut xëjjeeg seen amut parparlo amut fii laa bugga oo laa bañ ci kaw loolu nag kon li may jàngat mu ngi toog si tooj bu dëgër bi nga xam ne mu ngi samp ci njub ak dégg ak leeral rek yàlla ñu ci yàlla dimbal kon na ci kaw loolu dafa ab yoo xam ne dinaa ko fi lim faram fàcc ko benn par benn bu ci njëkk mooy kàddu yi Mama Kandeh gaaral ak lan la xelaat gis ci gannaaw wax ja déglu naa Mama Kandeh nag kàddu yam gaaral bu baax te dama ko doon dégloo itam ci teey ak tekk te bugg a cay jëlee loo xam ne dina ma njëriñ man jëmale ko nag ci tasaare ko ma njëriñ keneen mais yaakaar naa kuy waxati rek li tax nga wax du pour nga wàññeeku walla nga wàññi keneen kuy waxati pour nga wàññi keneen xamal ne yaa ngi wàññeeku yow sa bopp moom nag ca waxam ca gisuñ ko gisuñ ko fenn foo xam ne ñàkk teggin am na ca ak wàññi nit am na ca déedéet moom waxam ji yépp mu ngi doon jaar yoon mu teey ci di ko waxee nag ci wàlli ku xereñ ci wàlli politique te itam boole wut ca mer boole ca xaste te boole wut ca xataraay boo xam ne mu ca yëg boppam ci foo xam ne moom kenn rekk a fa nekk déedéet kon itam li ma ci gis mooy li ci gën a njëkk fes mooy maa ngi delloo si xeli nit ni ca ñaari bërëb yum dem te garal fay kaddu man gis naa ci kaddu yooyu lu am sol moo di ba m demee farafeñe guddi la fa am meeting loolu kaddu yam fa garal nag doon nañ kaddu yoo xam ne tax dañ ma toog nag ma déglu ko bu baax ne am na lu tax foofa safara feñe kii di Mama kande njiiti political party bi tudda GDC ñu xamee ko ci Gambia Democratic Congress Party wala Gambia Democratic Congress am na loo xam ne wax na ko déggin ba nag moo ca ëpp doole déglu ba ne mommo ne so yalla defe mujjot rew mi jiite rew mi li moy yegale a jame moy mom mama kande du ko doya dil du ko toroxal te lu leer nañ la wax mu ne dina ko jox cër bañ ko war a jox ca itam ne mas nay nekk njiiti réew te dinañ ko ko jox ba na matee sekk lu leer la wax loolu nag ku ko jàngat ci biir ak ci biti di xam ne ma Kandeh mu ngay waxe taxawaayi politicien ak itam koo xam ne bugg nay xereñ ci jaar-jaaram ci la muy xeex man koy jot ci anam yu leer anam yu set kon loolu mooy ne koo xam ne déglu nga waxi Mama Kandeh bi nga dégg ko nga doon koo xam ne itam sa déggin sa dégloog sa déggin méngoo ak loo xam ne xel mën na koy nangu war ngay xam ne moom taxawaayi politicien la taxaw moom nag nekkul koo xam ne dafa jàng walli sarta walli luwa te du mun a waxee ni ku jàng luwa waaye nag mën nay waxee politicien te itam soo waxee ci positioni yi politicien man na ko te sañ na ko ne moom war nay mun a wax yaa jàmme itam ne ci gis-gisam na door di xalaat moom yaa ci yëg-yëgam ak gis-gisam ne ëllëg am na gannaaw bu nit ki génnee ci yëfi nekkam président ëllëg boobu la man ma kande nag di wax yaa jàmme mu fagarul ko te mu koy won su koy fagarul moom su jiitee Gambia ëllëg du ko ci gàcceel du ko ci toroxal kon itam soo ko xelaatee ci wàlli xereñ ci fa ngay jaar ci xeex ak dara walla itam wëlbati ko man Essa Bokarr si foofa ànd naag fa Bamba Kandeh ci xelaatam booba man bokk naa ci ñi nga xam ne te gambeen yu bari ñu ko fi doon bind gis ngeen ko fii bind nañ ko fii ñu bindaat ko bus ngeen a gis sax ku mel ni suma brod Sadio Bayang mus nay bind yu demee noonu mu di exit route man ma bindoon ko moom it mu jël ko yokkaat ko ngeen koy support loolu passé na juróomi at taxut ne ñun dañ bugg a setal yaaya jame ne xanaa kay man damay ree sax ku xam isa kay xam nga ne <laughs> foofa ëppalewuma fa njaxlaf na njaxlaf na te taxut ne ñu ne dañ koy baalal ne ñun amuñ doole baalal walla setal yaaya jame loolu kenn amul dooleem du man du Mama Kandeh du keneen waaye la man ngay indi xelaat boo xam ne mën nay dalal xeli ka fa toog ak ki fa toogagut ak ña ñuy noot ak ña nootut ñu war a génnee mbir mi ci loxo yoo xam ne dee du ca am ëllëg nag ëllëgi yàlla la démba démba yàlla la woon tey tey yàlla la te kuy waxee noona te nekkagula président ni ma ko gisee mooy mu ngay moytandiku taxaw si tànki attekat yi moom dafay wax waxi politicien ne bokk ci li nga xam ne tey ñi nekk ci jongante beeg yaa jame lañ koy ŋàññee mooy ne bàyyiwut attekat yi ci seeni sago kon bu boobaa ku koy wax loola war ngay mën a doon koo xam ne yow it war ngay won nit ñi ne dinaa bàyyi attekat yi seeni sago xam nga dafa mel ni kiis yi day xew ci yeneen dëkk yi mel ni Sénégal xam nga léeg-léeg am ñoo xam ne dañ leen di téye tëj waaye président bi am na di prerogative of a pardon moo lay won ne mën naa lay ñàkk toroxal waaye nag du taxut ne duma la àtte àtte nit ak toroxal nit du benn kon bu boobaa nañ ko seetee nii rek naka si su fekkoon ne tey kooku dafa jóg rekk di xuppaatee ka saaga te ñun ñu ne loolu baax kon bu boobaa loolu baaxul ñu emagum fii nag ñu daldi leen indil beneen pàcc ba gannaaw bu bi jeexee dañ koy bugg di daggat daggat pour bu mu diis ci machine yi ñooy jëfandikoo kon nag ñu xaarade ko tuuti ñu dégloogum suñ mbokk mi